ne lutteur en activité yi jamono seen i président bu góor génn àdduna yan kàddu nga ci mën a wax. waaw wala suñu papa sa borom ku nekk ci làmb. papa la te kenn la woon ci làmb. xam nga fekke wuñu ci moom lu bari. dégg mm. nañu comportement boo xam ne. génération moom la ñu béy géej manga deux ñoom seen ay ñoom a témoin ci moom. mais ñun peut être fin carrière lañ fekk. Mm. fekkoon mu mu fekkee benn combat ci ñoom. Mm. mais li ñu am rek mooy xam nit la koo xam ne. Euh, nitu nitu nitu nit nitu neen la quoi. Mm. koo xam ne duggul ci ay détails. boo ko déggee muy wax rek peut-être si ay njabootam lay wax. mosuma ko dégg mu fustiger beneen mbër bu bokk amoo. làkkat la moon taalibe la mosoo ko dégg muy wax wax bu. man mosuma ko dégg te loolu dafa am importance ci kilifa donc boog ñu koy jaalee mhm. monde làmb yëpp mhm. xam nga nekkoon na koo xam ne euh, yàgg na indi ay médailles d'or ay jeux olympiques da doon dem xam nga dafay baax baax ñun suñu papa yi nga xam ne ay icône lañu woon dafay baax rek état du Sénégal di leen bàyyi xel di leen honoré ci période bi nga xam ne dañuy ci période nga xam ne ñu ngi dund mhm. mais duñu bàyyi ba mu ba ñu dem ñu ñuy wax seen ay baax baax loolu nag dañ koy déploré di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla àtte ci yërmande bañ ko toppee dara. di ziar ñëpp. tey mu mel ni euh, lamb ji ñoom ñoom bokk benn bopp la lamb benn bopp la. peut-être ku nekk rek da am foofu xar waaye lamb benn bopp la. Mm-hmm. lu dal ci benn nit dal na ci ñëpp. man maa ngi wax au nom de tous les lutteurs ñu ngi caati ñëpp. Mm-hmm. les anciens mm-hmm. nga xam ne ñoom ak bokk génération. man nga doy jiite leen ñoom Moustapha Gueye ñoom ñëpp làmb benn bopp la des nag parfois mënul ñàkk ay divergence mais loolu ci mbool ci ci mbooloo yëpp la am en tout cas daal suñu papa ji nga xam ne daf fi jógee ñu koy ñaan ci barke alxuraan yàlla na ko yàlla bañ a toppee dara rëq-rëq yi mu am ci wàllu àddina yëpp yàlla bu ko yàlla toppee dara ñu ngi koy jaale ñëpp nag parce que làmb c'est toute une corporation làmb nekkul mbër yi rek làmb entité la boo xam ne ñëpp ci ne boog ñu koy jaalee ñu koy jàmm le monde de la lutte le monde du sport mmh. Mmh. encore une fois mmh. état du Sénégal nay honorer les les couloirs période bi nga xam ne ñu ngi dund c'est important important nañ leen di nañ leen di honoré ci période bi nga xam ne ñu ngi dund bàyyi bañ a bàyyi bañ dem ñuy soo ñuy soog a wax seen ay baax baax parce que tamit nit ki boo koy honoré mu def yàgg défendre couleur nationale mm. da nga koy honneur bi muy dund mais doo bàyyi ba mu dem mm-hmm. ngay wax ay baax baaxam mm-hmm. te loolu am nañ seetlu nañ ko ci suñu ancien gloire yi nga xam ne des fois dañuy am ay problème mm-hmm. dañu am maa ngi liggéey ci liggéey boobu. Mm. pour pour pour gars yi leen jàppale ci wàllu santé. Mm. xam nga liggéey boobu ñu ngi koy liggéey avec des assureurs. couverture médicale universelle ñu liggéey. Mm. mais nag il faut que état bi appuyé ci. parce que ñooñu tamit dañoo dañoo foo euh, le pays. booy Bambara Mbaye Guèye et tant ay Papa Diop Boston. il ay njabootam ñoo ko jël yóbbu ko à l' étranger. est ce que ñëpp ñoo am les moyens. que il faut que état du Sénégal. di jàppale suñu ay du rek sport individuel yi sport collectif yi ñi nga xam ne dañu yàgg a défendre suñu ay couleur nationale dañuy feebar du ñu leen di utal ay ay di leen xam nga loolu c'est pas bien te ñooñu dañoo sacrifier seen àddina pour défendre couleur nationale encore une fois ñu ngi leen di jaale yéen tamit na la presse mm. seen partition dañ koy gis ci événement yu mel noonu ñu ngeen mm. di ñaanal jàmm di ko sàkku ci mm. xam nga temps bi li ci li tuuti nag yow xajul ci cin ah. ah. de loo koy wax waaw mais c'est la xam nga xam nga teg nañ ko ci yoon. Mm. tamit bon xam nga Balla xam na ko Balla c'est un gars très généreux. Mm. nit la koo xam ne tey papa ji yàgg na tëdd feebar. moo doon gérer toute la famille. Mm. kon moom xam na fu mu war a jaar. xam nga te te te mag la kilifa la. ñu koy ñaanal yàlla rek yan bi yàlla taawu kër gi la. du taaw sax am na ay frères am na ay sœurs. te tout ça kenn na jël responsabilité am ci yu bari. kon boog ñu koy ñaanal yàlla yàlla yan bi woyof ci moom lool. yàgg na uuf ay njabootam yàgg na uuf ay. njaboot gi yëpp mais bien avant que papaam di fi jógee kon boo continuité lay doon rek ñu ngi koy ñaanal yàlla xam xam ne dëj bi li dal ci kawam ñun ñëpp bokk nañ ko ak moom parce que mbër gënu ko ci làmb ji man gisuma parce que je collabore beaucoup ak moom ci association bi dañuy discuter saa yu làmb amee problème dama koy woo ñu discuter wax tirer ay angle mu conseiller mu ñu waxtaan bokk ñu bokkuñu écurie ay adversaire potentiel lañ mais saa yu ma làmb amee problème mhm. su mënuma nii ak nii ak nii mooy solution. Mm-hmm. ak ay moroomam ay Boy Niang ay Modou Lo ñëpp ñu may jàppale ci liggéey bi xam na liggéey bu nekk liggéey bu yomb. liggéey bu métti la. Mm-hmm. mais nag li ma ciy kontaan rek mooy à chaque fois su problème amee rek ku ma ci woo. Mm-hmm. di ma ubbil sa kanam ñu échanger. loolu nag c'est pas facile. parce que bari na ñu fi nekkoon ay président yu fi nekkoon yoo xam amuñu woon chance boobu. amuñu woon chance copter les ténors te liggéey boo ci nekkee te sa frère yi siiwuruñu dafay métti mm-hmm. maa ngi leen di jaajëfal di leen di leen jaajëfal ñoom ñëpp encore une fois ñu déggee géej waay incha allah